kon loolu jàll mooy euh, suñu suñu leeral ci lii riir ci biir réew mi mu des leneen loo xam ne dafa bokkul moo tax ma tàqale ko xam ngeen ne déggoon ngeen fi ab xeex bu am ca assemblée nationale ba ca ndakaaru euh, waxoon naa ca la nga xam ne moom la diine gis moo di in lam yumkinul qisaasu fal afu awla loola laa waxoon ca loola in lam yumkinul qisaasu fal afu awla nit ki bula defee loo xam ne mënoo fayu baal ko moo sës bu fekkee ni lii mu la def mënoo ko fayu bu la nit xasee te mënoo koo xas baal ko bu la nit saaga te mënoo koo saaga baal ko bu la nit ki lebalee loo ko war a fay daal ci wàllu fayonte te amoo ko baal ko moo fa sës loolu laa waxoon keroog mu Amadou Ñang moomu nag sunu mu Amadou Ñang la ñu ne waa fii ci ñun la dëkk sama rakk la yaayam ci sama ndey diine yi la bokk tey ndeyam ci boppam eh, seen maam ji nga xam ne mooy seen mooy seen maam di góor ja seen ndey ab sëriñ daara bu mag la woon ak kilifa diine gu mag la woon ci yoonu tijaan te itam boroom xam-xam la woon te yar na ay nit ba tàyyi yi ba leen ci yàlla ab sëriñ la woon mu di waajuru mu Amadou Ñang député moomu ngay gis ca boroom daara yi mag ya daan jàngale diine di yare ca la bokk nit nag place bu nekk ak lamu laaj mu laaj du Niang su ngeen fekkoon ca jàkka ja da ngeen wax ne kii ab salma siita la ngeen ngeen ngeen wax daa ilimaan ju mat lay doon joo xam ne dara manqué wut waaye nag place yooyu ngeen nekk daa nga sante xuloo ak xasante fi xew te ku nekk ci njaw di njaw waaye loolu sax du jikkoom moom doomi gandi gaal la nag entre Gandigal ak Mbuur foofu la nekk te ci biir Gandigal la dëkk sunu député bi ñuy yëngatu sax bari na ci suñu njaboot ñoo xam ne mook ñooma àndoon ñoom ñoo doon jàppalante ndax politique du càggee na nga am sa njaboot nga mën a pu xaw ma lu ngeen ko wax ci tubaab nga manant leen manant laa ko xam ci baatu olof manante leen mooy nga dajale leen raj raj la leen ci benn béréb ne bokk leen ànd ak diw loolu mooy manante ci baatu olof te manante sax dafa xewi ndax ku fi yaram réew bëgg a manante nit ci lu ma neex a fi am bu yàggee xeex dana fa moo tax ñun suñu njaboot dañ leen a libéré ci seen eh, dalug yaram lu xam nga dem ko bari nañu njaboote te ñoo ak Mouhamadou Niang moomu ñoo àndoon ci terrain bi di liggéey ba Mouhamadou Niang fal falu tey nekk ab député bu nu bokkut parti bu ñu bokkit ñoo bokkoon ndaje muñ am ndajaloo muñ dajaloo ndax yi léegi dañuy dajaloo door a am liñ bëgg kon Mouhamadou Niang sëriwuñu doomi gandi gaal la loolu bëgg naa ñu bari xam ko am li euh, loo bëgg am ko nag yombut waaye nun de bu nu sañoon ay tëj kaso du ci du ngeen njëkk tëj ay député yoo xam ne assemblée ngeen leen jëlee moo Amadou Niang nekk ca numéro un ak ki mu àndaloon Moustapha Niass doon na Djibo Ka loolu politique la kenn tëjul Moustapha Niass xaw ma Gallo Ndiaye lañ ko xaw ma nuñ koy waxee <laughs> moom tamit eh, ak Aminata Mbengue Ndiaye dóorante am na fa mu dóor ko waaye kaso amu te diggante mag Aminata Mbengue Ndiaye ca biir terrain ba la dóoree amee woon écran bi def koo feeñaloon te it booba góor gu dóoroon jigéen la góor la gu dóoroon jigéen ca biir assemblée nationale ba waaye tëjante kaso amu fa Ousmane Sonko génn na ci assemblée bi am ku ko dóor mu dóor ko xeex ba kenn ka dara ji simi moo mocc fay te nee na moo gañe xeex ba waaye waaw mën ngaa xeex nag gañe te sa mbubb simiku mën ngaa xeex it gañe say dara say marakis simiku ndax marakis xam nga dëgërul ci tànk waaw xëy moo gañe waaye marakisam yi moom lañ doon for di dajalewaat waaye dóorante booba am na te kaso amu fa kon buñ sañoon ah député yi ngeen bàyyi xulu xeex ndax loolu taxu ñu fal leen waaye itam bu ngeen dee tëj ay député ngeen bañ ko tàmbalee ci moo Mouhamadou Niang ndax moo mujj a dóorante ci biir assemblée national te dóorante yi njëkk yëpp defar ngeen ko man mas ñeen présidence assemblée nationale ci boppam day ji ma defar njabootam googu ñu bàyyi xulu xeex ñii xasaate bàyyi xaste ñii jiima faji xasit bàyyi jiima faji xas ngir nekk ci jàmm ba seen mandat jax ngeen wàcc loolu daal buñ ko mënee am moonu gënal ah buñ ko mënta amit nag ah waaw nu dale ko ci Mouhamad Niang rek xam ne moom njëkkute dóore ci assemblée te du mujj a dóore ci assemblée waaye nag buñ ko tëjee moom ku ku dóorit nañ ko tëj ndax loolu mooy yoon waaye buñ sañoon daal ngeen rafetoo daal ngeen liggéey seen liggéey ba liggéey bi jeex ndegam député dóor na fi morom ja ñu seere ko àddina yépp seere ko te ngeen fexe ba defar ko ba mandat booba jàll ba ku yëg-yëg wàcc-wàcc buñ sañoon tamit noonu ngeen di doxale mandat yi ba mu jeex tàkk su fekkente ni mun ko koo amit nag ah am jël ndax lu yaay togg bu yoboo neex ndax doo reeri feneen makki sunu ndey kon lu mu togg moom la ñuy dundee bu neexee moom la ñuy dundee bu naqaree moom la ñuy dundee waaye daal bu ma sañoon ah, a ngeen ji ma rafetoo rek ñii xaste bàyyi xaste ñii doore bàyyi doore ngeen ko ne seen liggéey bi ñu leen sant ba seen mandat jox ngeen wàcc ma daal loolu lay ñaan su fekkee mën naa nekk loolu lay ñaan su fekkee mën naa nekk CEDEAO ñeneen ak ci yem CEDEAO ñeneen a ci yem CEDEAO bu ñu yëkkatee kàddu bëgg a dugg ci Sénégal di fi atte itam la mu atte bu ngeen ca àndee dafa fekk mu arrangé leen waaye CEDEAO CEDEAO atte na fi loo xam ne ba ko attee président daal lànk na seen yoon néew ci maamoom sama réew nañ ko doxalee noona rek waaye nag bu fekkente ni atte na loo xam ne arrangé wul nguur nguur taxaw daan ne ñun dañoo am souveraineté seen kenn néew ci suñuy biir bu attee loo xam ne lii arrangé na buur buur ne ah kañ dëgg la nañ ko atte kon it day mel ni di wax na fii dëgg waxut fee dëgg rek waa ñeene ñeene it di wax na fii dëgg waxut fee dëgg noonu lay demee Gandigal nag ah Gandigala ah, mille cent la woon ba tey damel ji ma sa falu ñëw nga fii ñu sangala fi nga dara dem falu ji te damel musta gis néegi Gandigal bu fi daal romb dañ koy muur ak sër du gis dëkk bi loolu nag jàll na léegi léegi moom yeneen a xew islam dikk na ba yu bari ñëkkatu fi waaye daal Gandigal daal Gandigal bu nu sañoon daal ngeen xam ne gàndigaal gàndigaal la rek waaw ñoom buñ natul kenn kenn du leen not waaw buñ natul kenn kenn du leen not te it bu gàcce dikkee ñu dee mooy seen dikko loolu xam nañ ko ci ñoom ku leen nar a toroxal ko ne nga yóbbu seen ak ruu moo gën a yomb waaye daal yal na yàlla teg nu ci jub yal na yàlla teg nu ci sellal noo ngi ñaan daal jàmm noo ngi ñaan jàmm ak jàmmoo caabi eh, kaso nag saa la ci dugg caabi ba la fa dugal moo la fay génne mbaa nga dee fa caabi bi buur bi jël dugal la ci kaso na la ràpp tëj caabi booba lay dikk ubbiwaat la kon luwaa bi ngeen bëgg a tëjee gaa yi luwaa bi mën na leen a génne te ngeen rafetoo man daal loolu lay ñaan suma ma ko mënee am jàmm laa bëgg joxuma kenn dëgg nag ndax du ma waaye daal ñu ngi leen di ñaan jàmm daal nu ngeen mën a dem ba jàmm am daal def leen ko eh, ñu ngi ñëw ci leçon bi léegi.